والأربعون مقام فن ينفك نت مقام ينفك نت البكر يجيك بكر حكى نت لنا الحارس بن حارس دو مهمم قال حارس هنا هفا دمه النبي من البين تقلكو المتوح كي اجي ساني تقلكو كي خاوند فني ساني سي برب بو سوري مانام باجي سوري رك وسير اك دوخ المبره غاجي تات الى ارض نجم سي سوف سو خامنا يدلو دنا ريري بيا سي موم الخريت سالتيكي موي كو الله دفتي رير wayafraqu dana ragalee fiha ci moom almasalitu jàmbaar ya boo xam ni loo jàmbaar jàmbaar boo fa duggee tiit mu ne tumurank gi sànni woon ko ci àll bu mel noonu fa wajatu ma yëg nga xam ne yejidu dana ko yëg alxaa'iru aji gëlëm alwaxiidu ki aji wéet ma sama xol loo xam ne ni dama mel ni koo xam ne damaa gëlëm te man rek maa fi nekk kooku la muy waraaytu gisoon naa maa la nga xam ne kuntu nekkoon naa axiidu di jeng minu ci moom an moytu ma gis ko dégg illaa anna nii lu mooy man sa jaxtoo encouragé naa qalbi sama xol almasuuda ba da bañ jàqaloo wa nasaatu ma jàjji dégg nga nit wi wala boog Muhammad nit wi sama gëlëm gu lompañ ga almajhuudu ba da bañ sonal wala bada bañ soññi di ko dawloo ndax bu ko dawloo rek sonal nga ko sama gélem goog nga xam ne dafa lapp ma di ko soññ di ko jàjj rek muy dem wa surtu ma dox sayra daari bi comme dox aji dóor bi xiddi xayri ci ñaari fett maanaam may xalaat léeg-léegi ma naagu léeg-léegi ma ma am confiance hmm? léegi-léegi daal ma ragal léegi-léegi am dal loolu mooy kuy dox ñaari fet al mustaslimi kaa ji jébbalu lil xay ñeel dee ñeel alkande may dox dox ak koo xam ni daal jàpp na ne moom dee rek mu ñëw walam azal dañu ma bayna wax din ci gaaw wa zamilin ak cal cal mooy dox bu digg doomu wa ijaazati miilin ak romb ab miil baada miilin gannaaw miil miil mooy maddul basar boo xoolee sa bët mu muy yem looloy benn miil wala nga ne ñetti junney xasabu mooy benn miil daf mel ni ñaari ñaari xasabu yu nekk mooy benn mètre kon junney xasabu junney mètre kon mooy miil dégg ilaan kaara jëm ba mu xaw a shamsu jant bi tajibu di daanu maanaam di so wa leer gën a yax tajibu di muuru dem ba jant bi so leer gay fartaatu ma di tiit li islaami zalaami ngir li lëndëm ga waxti xaami jeysi xaamin ak xëttëg armeb xaam ba xaam jur nit ñuul ñi bu waxee armeb xaam mu ngi xëtt maanaam armel nit ñu ñuul ñi ñu ngi xëtt li mu wax foofu mooy guddi gu ñuul gaa ngi dugg ba guddi gu duggee nag waram adri xaw ak fitu manax damay wakk ak zayla sama cet sama mbicci wa artabitu ma takk sama daaba gi am artamidu wala damay mbatal a layla guddi gi dama koy dama koy def comme mbatu jaase dugg ci biiram wa artabitu may làmbatu ma ne nag ba guddi gi duggee xaw ma ndax damay wak sama mbicci sama cet yére yi takk sama daaba daal di toog wala boog damay jël guddi gi rek sol ko mel ni jaas yu nekk ci mbatam di làmbatu rek xaw ma lan laa ci def wa bayna ana ba nga xamee ne man uqallibu maa ngi jàllal bi al azma dogu nan ah tee maa dem rek xel mi nan ma tee ngaa toog wa am taxidu maa ngi faat alxasma xel faat dax mooy génne faat soow mooy génne dax ba diw gu sell ga nekk ci kaw soow ma امتخذ اللبن ويجيني ندخك منك معي جيم جيني لي جنا رفعت سما قلمي كم نيا خم ندخك سو مو جنا رفعت سو مو بمي خيال لول ترى أتيل فين يلين يلما سبحو جمال جمي جرم مستزرين بأجي لقتكو بجبل تدوت ولا بوك بأجي ويدو ولا بأجي كارلو يمن نغفر si sansere laa gis gëlëm goo xam ne nii ma nga làqatu ci gannaaw doj fa tarajjaytuhu ma yaakaar ko xoxdata muriixin muy naagaak aji noppalu ma yaakaar ne góor guy noppalu moo ko moom wa xasattuhu ma jublu gëlëm googu xasda mushiixin comme jubloog aji góorgóorlu wala xasda mushiixin comme jubloog aji ragal achaaha mooy mooy mooy mooy mooy ijtahada fil amri aw xazara góorgóorlu na wala moytu na nga jubluwaay ji comme ko ragal wala jubloo koo xam ne mu ngi daal bëgg ku ko wéttali fa ida zannu nekk njort gi kahaanatun gisaani la ndeke la ma njort noonu la gëlëm ga benn waay bi noppalu moo ko moom wal qondatu te naaga ga mooy waruwaay ba maanaam gëlëm ga ay raanatun gëlëm gu dëgër la ba mel ni mbaam ak gaawaay dañ naan nerule seen gërëm mbaam wal mu réexu aji noppalu ji nag xadis dama la sàngoona bi bi jaadi yi ca ga mu ne kooku di noppalu maa ngi ko fekk ma nga sàngoo mbàjjam ga dégg nga waxta xala tus ngeloona bi ruqaadi yi ca nelawam ya maa ngi fekk ma ngay nelaw daal sàngoo mbàjj ga fa jëlas suma toog indara ci fa bopp ba ma dem toog ci boppam xataa xabba ba mu yeewu min nuaasi ci gémmantoom ga ba mu yeewoo nag fala mas daxara ba mu leeree siraajaawu ñaari lampam ya mooy ñaari bët ya ba mu ko rek wa axasa mu bi man ci nga xam ne faajaahu bett na ko ba mu ubbee bët yi yëg ma rek nafara ci la daw kama yéen firu comme nu mu dawee al muribu ku sikk dara daal yow gis ma la daal di puus waxaale mu ne axuuka sa mbokk la mi zibu wala till la kooku misaal la ci léebi arab yi ñu di ko misaalee kuy sikk ci dara axuuka ami zibu mooy booy sikk ci dara naan lii moom sa mbokk am till la luy lool dafa am benn waay boo xam ne dafa amoon xarit boo xam ne sàmmkat la mu dikkal xaritam bi ci xaaju guddi nag te sàmmkat ku ko dikkal guddi rek da yaakaar ab tilli la ba mu ñëwee ne ko axuuka la mu ne ko sa mbokk meele waaye du tilli gi nag di ko tooñ mu mujj nekk léebu arab buñ ne axuuka ami zébu sa xarit la wala sa noon la lañu bëgg wax booy sikki ci dara xamoo xarit la am noonu la danaan ko axuuka ami zébu abu zeyd loolu la wax waaye yow moom xarit nga am noon nga fa qultu xaaris ne ma ko bal li fi nekk xaabitu laylin aji làmbatu guddi la ma ne damay dox ci guddi gi di làmbatu rek fu ma jëm dal la la almaslaka yoon wa fa addi leeralal lii ñeel ma aq dax ma koccal la ka ñeexel la leeralal ma ma koccal la leeral nag idaatu leeral moo gën a leer koccal maanaam dafa bëgg wax ne dégg nga laaj ma ma tontu la wala boog defal ma teraanga ma defal la ko wala boog dimbali ma ma dimbali la di man li may dimbali mu ëpp sax loolu misaalam arab la mu muy tekk nañ defalante daal njëkk adi lii aq daxalaka mooy defal ma lu baax ma defal la lu baax kocc rek ida ana mooy nga leeralum leen nañ fa qaala su defee abu zeydi ne ko li yasri li na dañ wala na wuññeeku an ka ci yow xam mu ko sa njàqare su ko defee ci ko abu na sa njàqare dem fa rubba aqi axin bëri na mbokk moo xam ne lam talithu jurut ko ummu ko sa yaay ko bëri na mbokk mu sa yaay jurut loolu it léebu la benn waaye bu ñu woo Luqmaan ibn Aat dafa mosoom mar dem ci ab ëtt kër fekk fa jigéen joo xam ni ma nga nekk ak benn waxambaane di foo ak moom mu ne ko yow waxambaane bi sa wa sa wet mooy kan ah man xam naa ko du jëkkër mu ne ko du sama jëkkër waaye sama mbokk la Luqmaan na ko rubba axin lam talidu ummuk bëri na wala ba ummuk fii bëri na mbokk mu sa yaay jur ne ko ko wax ne ko mu mujj nekk masal ci tuumaal nit booy tuumaal nit donc mën nga rubb axin lam taridu ummuk maanaam looy xoote fekk nekku noonu daal hmm? bëri na loo xoote waaye affaire bi demeewul noonu de dégg nga waaye fii nag namul ci loolu fii dafa mbokk mu lay dimbale te sa yaay juru de loolu la bëgg wax fii dégg ah, fan saraa mu daal di wuññeeku inda dalika ci loolu ishfaaqi sama ragal mu ne ba ma waxee loolu sama ragal gi daal di dañ wa saraa mu royaat al wasanu gémmantu ga gémmantu ga daal di royaat ilaa ma aaqi jëm sama nagu bët maanaam ma daal di commencé gémmantu daal bëgg na raw dégg nga fa qaala mu ne ma inda sabaay fa suba teel yaxmadu lay santal xaw asuraara ñaan mu ma ah, buñ fi neraw kat nañ dem bu suba teelee rek ci la ñuy sant rañaan nee nañu googu ki ko njëkk wax mooy Xaalid Xaalid ibnu Walid Xaalid ibnu lislaam ja moo njëkk wax kàddu googu ba ko Abubakar yónnee dem ne ko demal Iraq jóge Yaman moom war a dem Iraq mu ne inda sabaahi yahmadul qawmu sura ci suba teel gi lay nit ñi di di sant rañaan ka loolu la waxoon maanaam nañ dox rek gannaaw coono noflaay moo ci nekk loolu lii misaal la buy tekkee ne gannaaw muñal coono gi ndax gannaawam noflaay ci nekk loolu lay firi rek a sabaahi yahmadul qawma sura ci suba teel gi lay nit ñi gërëm rañaan nga mooy muñal coono gi ngay daj ndax gannaawam noflaay rek ci nekk xaalis da ko njëkk wax benn waaye dugal ko ci wayam ne yaa nafsu quumi baadama naamal wara in taamali xayran fadul arshi yara إبكي أيا عين دعي عنك الكرى عند الصباح يحمد القوم قوم السرى ليس وجرفت من يا نفس أي بكن بقومي جغل بعد ما نام جناب من لوي الورا من دفي يو بكن بخير بنجم نلون جوج دجا مصبرم إن تعملي بود في خير يو فزو عرش يلا مي بما راس يرا موي غيس لي نغا ديف ليب ابكي جويل ايا عينو يو رونك يو بدي da yi bàyyil ak alkara gémmantu xan ka waris la yow bët yi bàyyil gi te nga jooy ndax ragal yàlla ndax bëgg yàlla ndax sopp yàlla mu ne nga ne ko waa loolu métti na di ni ñëpp nelaw man may jóg man bakkan bi loolu métti na di bët yi naan ko ñëpp di nelaw man may jooy loolu métti na di mu ne ko inda sabaaxi yaxmadul qawmu sura yaxmadul qawmu sura si suba teel ga ci lay góor ñi di sant seen rañaan ki dox guddi googu bu suba teel jotee nga gërëm ko manam bu mbekté bi ñëwé da nga gërëm coono bi nga doon rek lool la wax waye waye bayt bi mom daf ko way mais wax ji Xaalid moko ko wax faal tara ndax da nga gis kama araakum nu ma gis Abu Zayd nako ko bu fekkee noflaay mo nek suñu këram ndax gis nga li ma gis xaalis ne fa qultu manako inni naka man la atwa ma gëna top la ka ñeel min hizaika si sa dàll wa awfaqu maa gën a dëppoo min xidaayika ci sa maa gën a dëppoo ak yow sa maa gën a topp sa dàll loo bëgg rek bëgg na dégg fa sadaa mu daal di feeñal bi mahabbati ci bëgg ma ah Abu Zayd na moom xam nga ko topp bëgg ndax moom musiba lay def moo tax ku koy critique arrangé ko ku koy topp rek naan ko samina wa atana moo ko mu ne mu daal di ne bëgg na ma wa bax baxa mu ne iskay bi soxbati ci ànd gi ma ànd ak bax baxa xaala baxin baxin baxin baxin mooy hmm? bax baxa mu waa iskay dégg su maxtamal naa topp ñu rañaan mujj day ni di ñaari way góorgóorlu maanaam ñaari way gaaw daal war taxal naa ñu laxas mud li jéeni di ñaari way yuq maanaam di dox guddi dem walam nazal dañu nu aani di jànkuwanteeg asura rañaan ga mooy dox guddi wano ansi ñuy mooyanteeg alkara gémmantu ga te moo di ilaan balaxa jëm ba mu jot allaylu guddi gi xaayatoo ba guddi di waa ji jeex war a fan mu yëkkati alfajir fajar raayatoo drapeau maanaam leer gi daal di rek de kon moom kenn doon am na dox nañ ba guddi gi jeex nag fala maas fara ba mu leeralee alfaadu aji leeral ja moo di bëccëg laa wax de wala mu yëpp xadisul illaa waadiwun lu muy aji leer lépp mujj leer rek tawasamtu laa setantal waaw rafiqa rixlati anandooru sama laxas ga wa samira laylati yangoom laalum sama guddi ga ki nga xam ne moom laalum waxtaan sama guddi ga ma setantal ko faysa huwa nekke moom abu zeydin moo di abu zeydin matlabu naashidi mooy sàkku teefu aji jibtaane mooy kuy sàkku dara daal abu zeyd lay sàkku moom la ñëpp di wër wa maalamu rashidi mooy mandargaalu waaw aji gindeeku képp kuy gindeku rek dégg nga ka xam ne waaw moom ngay moom ngay gindee ko kooku moo di Abu Zeydi moom mooy tegtaral njub a ah, ba ma ba ma ko di kontaan fa taxaaday naan ñu haddi yarante taxiyatan muhibbayni comme ni wante ñaar ñu soppante isal taqaya buñ dajee baandal bay ni ko ñu nuyoo wante comme jir bu yàgg su ma ñu génn lante ala asraar mboolya watanasasna ñu feeñalanteel axbaara xibaar ya su ko defee nag ñu génne boori feeñal xibaar ya wa bàyyi sama gëlëm nga yan xitu ma ngay yelkat minal kalaale ngir ak lottu man sama gëlëm nga ma ngay yelkat di ajjat di nooxi ngir lottu waraaxeetu gëlëm nga moom tasifu ma ngay gaaw safi farraali comme gaaw ak comme gaaw ak baa banjoli gëlëmam gaa ngi gaaw lool mel ni ak banjoli فعجبني مهم لو ما استدار أسرها تتكتنم كتنو جلم جوجو دال مهم وامتدار صبرها تلو منيم جلمم جمون جيا جمنا من دال مهم فأخذت مكماسة استشفو دكينو جوهرها جمي جلم جوجو مكماسة نك دي قول نيال بندي جلم جوجو واسألو ما دي قول من أن تخيرها فان لكو تاني منك واسا جلم جي مم فوق جلي فقال منما inna li haadihi naaqa naka ñeel na gërëm gii xabaran xibaar xulwal mazaqati bu neex ak caf nga mu ne gërëm gii am na xibaar xibaar bu neex mali a siyaqati bi aji xormu ak mang wax la joo xam ne wax ju xormu la soo koy nettali fay na ahbabta boo bëggee nag istamaaw déglu xibaaru gërëm gi fa aneex na nga yeesal maanaam wàccel wàccel ñu toog moo ma nettali la waaw mbiru gërëm gi way lam tacha boo bëggul na falaatu sex bul déglu kon jëru nga may déglu nañ dem maanaam boo bëggee ma nettali ma nettali la mbiru gërëm gi daal dañuy wàcc toog waaye di dox ma la koy nettali moom duñ ko def xaaris ku bëgg adab la fa anaxtu ma yéesal li xawlee ngir waxam nit wi sama gëlëm gu lamp ga wa ahdaftu ma njumal jum mooy la ngay jam boo waxee ma jumal nag asama nopp li ma yer wi ñeel la muy nettali mooy la muy nettali lépp jël naa sama nopp bi waa mu mel ni la muy lu mu nettali sama nopp bi la war a jëm maanaam samp naa sama nopp bi wala ñawal naa ko daal ngi déglu fa qaala mu ne eelam xamal inni naka man istaaratuha jënd naa ko moom gëlëm ga bi xadara mawt ci dëkk bi ñu wax xadara mawt wa kaabatu jànkuwante naag fi taxsiila ci amal ko almawtu dee almawtu dee xawoon naa dee sax ci wut gëlëm googu wama ziltu dañu ma woon ajubu di daggaale yaa ci kaw gëlëm ga albul daana réew ya waati su may toj beex faafe a ci tànki gëlëm ya mooy ndefeñ ya zerraana doju ñëw ya dëkk yëpp gëlëm gi laa war di ko di tànk yi ñëw yooyu daraan doj daraan damm doju ñëw ya mooy ziraan dégg nga ilaan wajatuha ba mu fekk ko ubra asfarin muy jigi kay tukki waxdota qaraarin muy xadoog sax waay de gis naa ne gëlëm googu ku bëgg tukki rek moom ngay war dem mooy waaw xaduwaayu ak ak sax maanaam ku bëgg a bu ma saxee ci barab bi demu fenn it gërëm googu doy na ma koom daal lay yana xaa du ko yéeg alaanaaw coona gërëm googu coona du ko gaar walaatuwaayi xaa du tolloog moom waj naaw benn nenkateng nenkateng mooy gërëm gu dëgër wala gërëm goo xam ne ndax it dafa gudd rek wala tadri xamul mal hinaaw luy gadron gërëm gi xamul luy gadron ndax mosul ràmm gërëm bu rambe def ay góom dañ koy defal gadron waaye gërëm gi gii moom xamul loolu faar satwa mu fuglu ko lil xayri ci ñeel lu baax wa cher ak xay su ma amee xay moom lay war su ma amee jëf eh, eh, xiw moom lay war dem wax lal tuha ma wàcce ko ma xalal barri comme wàcc waaye ku ma baaxee asarri ko mu wàccee wàccee ko wàcc waaye koo xam ne defal lu baax di ma kontaan loo fa tafaqa mu dëppoo ànd ne lii mbir te mbir foñ na mu mu dëttin diir ab dippi ab diir gi dem na nag xaw ma fu mu dem bu maa lii ñeewlu ñeewlul ma si waaxaa lu moom xool tam ci naaga xaw ma benn gëlëm bu dul gëlëm googu de parce que ma daal di jiitlu ana safa njàqare mu ya di tiit lool sakkoon yàqare nag def ko sama nji laay wastashraftu ma di kéenu atalafa sànku maa ngi yëkkati sama bën nag di xool ak sànku jàpp ne léegi maal ko rek de wana siitu ma fàtte kulla rus in bépp musiba ndax musiba bu mag bu ñëwee nga fàtte yu ndaw yi fàtte naa bépp musiba boo xam ne salafa wéy na wa ma ma sax salaasan ñetti fan la astatin du ma atan in biansan dem ñetti fan yoo ya xam ne mënu dem wala atamu duma ñam annaw ma nelaw illaa xisaasan lu may ci jëllal maanaam lu tuuti rek laay nelaw su ma xasu ma commencé nag fi istiqraa'il masaaliki ci topp yoon yi wa tafaqudil masaarihi ak nemmeeku ballu banduwaayu gëlëm yi maanaam fay gëlëm yi demee rek laa wax de wal mabaarik ak góor waay fi nga xam ne gëlëm yi dañ fay dox di dem rek ak fa ñuy góor yëpp maa ngi koy topp mu waaye man laa astansi du ma uh, xañtu min ha ci gëlëm googu riyaan xet ma ci benn xibaar daal wala astansi du ma muuroo yaasan naagu mu riyaan gaaji noppal waaye ba léegi naagu ma ci gëlëm googu daal mun ma ko ñàkk te ma ci moom benn xibaar wa kullama dakkartu saa yi ma fàttali ko ma daa ak gaawam fi sayri ci dox wan biraa ak li mu baanaati tey ñeel ndagganteeg picc ya gaaw gim gaaw ba mel ni dafay rawanteeg saa yu ma ko fàttalikoo rek laa ani mu lakk ma ali dikaaru fàttaliku wastahwat ni mu yóbbaale ma al afkaaru xalaat yi rek laa may xalaat rek fa bayna ma ana ba nga xamee ne man fi xiwaa in maa ngi ci ay néeg fi waaye baa ngi axyaa yi maa ngi si néegi yenn ca gàdd ya maanaam kuréel ya ici sax samatu laa dégg min sax sin ci jëmm mutabaidin gi aji sori wa sawtin ak kàddu mutajaridin gi aji rafle maanaam kàddu gu xumb wala mutaxaridin gi aji beru kàddu goo xam ne moom rek moo nekk waajal naan man ana ka nga xam ne dala réer ne loo ñeel ko matiyatun ak gëlëm xadara miyatun bi ka jug xadara mawtu ah te ne bosam la watiyatun gaa ji mokk jilduha deram xad wusima mandargaal nañ ko waaruha rambam rambu mooy góom mm, am xad xusima dagg nañ ko fekk waa ab dàll rek lay laajte dàll dàll bu mel ni dàll mooy la jógee dàll bu mokk am ay mandarga taamu ràmm loolu rek la ci namm wasimaamoa bu moom nga xaddu fi la létt nañ ko létt fekk war waaye dàll ba rek la la na mu wax wa zahroa gannaaw ga xaan kat xat ku sira dafa mel ni damm nañ ko su ma topp ñu jàng ko maanaam dégg nga dafa neex dox rek laa wax de gannaaw ga digg ba nuux mooy fay ndëggu la euh, tegu dafa jug digg ba nuux loolu waral mu ne daf mel ni lu damm ko fekk daal war la ci namu yow nag boo gisee da nga yaakaar ne gëlëm gu neex war la ci namu te zinu dana taaral almachiyata aji dox ja wa tuinu dana dimbale an naasiata jànq bu jigéen naasiata jànq bu jigéen ba abu zeyd na yaakaar ne gëlëm gi wa taqtama dana dagg al masaafata àll naa yee yaa ji sori daal moom lu mu sori sori mën na koo dog wa tasaru dana yenn abadan ba faaw mu daanee te ndaa ji jege wanteeg lakk ñeel la daal woowu saa su nekk mu lay jege laa yan tabiru du xawanteeg moom al wana coona wala lottu daal woo du lottu mukk daal la ci na mu nag abu zerid gëlëmam gi nii la mel dafa yaakaar ne gëlëmam gi la wala yan tari du ko galan al waja teccu mooy métit ak tànk daal moom du dem bu mu kubba tànk bay métti wala tox wi ji duñ ko xaajaloo ilal ansa jëm si yet waaw daal yu soxlu yet moom boo waree rek mu dem abu zeyd gërëmam gi noonu la mel soxlu rexet ndax boo waree mu dem wala temps yi du mooy fi man ci ñi nga xam na ansa mooy nañ daal du mooy borom abu zeyd yaakaar ne gërëmam nga la bëgg wax gi du mooy xaala waxnam abu zeyd abu zeyd ne fa jëzabani mu ñodd ma asawtu kàddu ga ila saayati jëm ci aji kàddu ja mu basharani mu bég mu bégal ma bi darkil faayati ci jot waaw aji raw ja ah mu ne kàddu gi daal ma topp ko rek ba yegg ca borom yaakaar ne nag gëlëm gi eh, gis naa sama gëlëm nag maanaam ci la yaakaar ne gis na gëlëmam gi nag fekk gis dara dawaa ji waxut waxut gëlëm dégg nga Abu Zayd na ma yaakaar nag gis naa sama gëlëm nag laax fala ma afdaytu ba ma yeggee ilay jëm ci waa jooju wasalamtu ma nuyu alayhi ci moom qultu wax naa la woon ñu ko ne ko sallim jébbaleel almatiyata gëlëm ga wa tasallam ta nga jël nag alantiyata may ga jox ma sama gëlëm nag ta nga jël neexal fa qaala waaj na ma matiyatu ko lan mooy sa gëlëm ga lan mooy sa war waay ba gufirat yàlla nañ jégal xatiyatu ko sa ñaawteef Abu Zayd ne qultu ma wax la ñu ne ko naaqatun gërëm la goo xam ne gisatuwaa jëmmam kal hadbati comme doj bu ndaw doju lamaar muy doj bu ndaw wa zirwata wala wa zurwata ñaar yëpp baax na jegeñam ga kal qubbati dafa mel ni nen nen nen ak tabax mooy lu ron li nekk ci kaw tabax yi waxala bu ak rattam mil ul ulba fees na pot ba rek laa wax de leket fees na leket boo ko rattee soo mi dana fees leket gu bëri soow la noonu la sama gëlëm gi mel dafa rëy ba mel ni doj jegeñ ba mel ni nen mu bëri soow lool ba boo ci rattee dana fees ab leket bu kuntu nekkoon naa on teetu joxeef nañ ma biyaa ci moom isirina ñaar fukki dinaar zaxalaltu bu mu wàccee bi bi eh, yabriin dëkk bu ñu wax mu ne ba ma demee yabriin fay nañ ma ci ñaar fukki dinaar ñaar fukk daal la wax parce que surtout ma sàkkoo dooli loo allaji ki nga xam ne ana taal joxe na ñaar fukki yooyu wa daraytu ma xamandoo ne moom axtaa juum na mu ne ko ah, ñaar fukki kay tuuti na ci gëlëm gi xaaral mu ne fa en rada mu dëddu andi ci man waa ji dëddu ma nag xëy na samia ba mu déggee sifati sama melo fekk waa ji daal lay wax waqaala mu ne ma lasta nekkoo bi saay bi luqtati di borom ak sama for mu ma la ma for moomoo ko faaxastu ma daal di jàpp bi talaa ca poñe kaayam ya mooy fañ koy poñe ma téye ko waa salatu ma nuur ala bi ci naar looko ko ma ne ko waxoo dëgg maa moom gëlëm gi waa moom tu may too bi tamsiqi jëraa bii bi ci foñeti ay mantoom ma bëgg a ay yërëm nag woo moom yaqul may wax naan yaa haza yow maa matiyati di sama war waay bi bi tel bi ka bi tel di sa càkkutéef li ma yore du moom ngay seet fokk fu fegulaan nii ci man min xar bi ka si sa ñaw ka bàyyil song gi may song nag wax di bàyyi laan sa bi ka si sa ŋaññi xas yi may xas bàyyi ko way laa bu fekkee nangoo ko bàyyi fa qaadi ni nag ma attaloo ilaa xakkame hadal xayi ci attikatu bi de gàdd maanaam bi le koñ albari bi aji dañu mel ne xëy ci réer wala ci mbawte yóbbu ma ci àttekat boobu kooku moom du du tooñ fayin aw jaba nem waral na gëlëm nga nem waral na sama waruwaay wi lakka ñeel la fa tasalam nga jël wayin wa nem téye na ko nag wala boog nem tere ko an ka ci yow kon nag falaa tatakalam bu fi waxati dara nag nañ dem ci àttekat ba bu ne yaa moom sama waruwaay nga jël bu dul loolu noppi Abu Zayd ne falam ara gisuma dawaa xisati saafara sama njàngat ba wala masa masa xusati du caageen wéyal ak sama fot ga fot mi nekk ci man ak waaw ak dégg dara mënu ko wéyal rek ilaan aatee lu muy ma dikkee alxakama ba wala wala kama di la kur na rek laa wax de di la may dóor naa ko dikkal fan xarat naa ñu daal di fël maanaam ñu yegg ilaa cheikhin jëm ci sëriñ rakin nisba biyaa ji dëgër ak samp boo ko xoolee rek xam ne ku wegu la maanaam aneeqin nisba gi aji yéeme ak kaala kaala gu yéeme la yore nisbatu moo gi matu kaala lañuy firi yuusanu danañ wéttalikoo minu ci moom sukunu taaye dalak picc boo ko xoolee da nga yaakaar ne picc mën naa dal ci kawam sax te du yëngatu ndax àttekat bi dal gim dal ak wegu gim wegu waan lii mbir te mbir lay si nekkut bil jaayri daa ji boo xoolee àttekat ba rek xam ne jéngut fan dara tuuma jëñu nag ma ñëw nag di ci moom ata ata ata zallamu di jàmbat tooñ waate allamu di méttendu wa saahibi sama àndor moom muri aji noppi la laa yetaram ramu du yëngal gémmiñam maanaam waxut dara hatta ida nasaltu bu ma génnee kinaanati sama tunkaar maanaam ba nga xamee ne lépp lu nekkoon sama defukaay fett dañ na maanaam wax naa la ma war a wax yëpp moom man Abu Zayd waqalaytu ma jeexal min al qasasi ci histoire bi lu baanati sama xaajo nettali naa daal la ma war a nettali lépp ah abrasa ci la génn génn moom waaja naa lan dal razinatan wazni di aji diis ak peese maxzuwatan bu buñ préparé li mas li maslakil hazni ñeen suubu yoonu kekk waa ji génne dàll wu diis woo xam ne pour dox ci barab bu kekk moo ko tax a jug waxaala mu ne haaji lii lati mooy li nga xam ne araftu naa ko way yaa moom dong wasaftu laay melal waa ne ah man de dàll wax moom laa leen wax ne dama koo for waruwaay la fen kaan nam nekk na yee moom allati mooy li nga xam ne on te joxe nañ ko biyaa ci moom ay ñaar fukk waaw mu ngi nii leen mu bi ci ci way gis ñi mu ngi nii di gis dàll bi bu ci lii lañ ko joxee ñaar fukk faqat kasaba nar na fi daawaaw ci waatee moo xut dëgg ndax lii jarul ñaar fukk wa kabura rëy na maftara walam fent allahuma lu may ila an yamudda mu tàllal xasaalahu kaan ak wayu biinu mu leeral misdaaqa ma xaalahu dëgg la mu wax mu ne ah xanaa mu woon ndonga rek mën naa am kon ñaar fukki pes la bëgg wax bu wane ndong ndonga daal bañ gis ne am na ñaar fukki pes pes maanaam lekkat yaa ngi ci gannaaw bu baax daal lu mu wax dëgg la dëgg la waaye moom fayuñ ko ci xaalis bu toll noonu moom fa qaala moo araaka mu attakar bi ne allahuma yóbbu yàlla xafran yàlla nga ñu jéggal wa jaara mu commencé yu xallibu di jàllal bi nag annaara dàll ba bat nañ ci biir wa zahran ak bit atteka bi ne yàlla yàlla nga di jàllal bi dàll bi rek bi rek di ko xool su ma xaala tof moo ne amma haadihi naalu waaye dàll wii fa naal yi sama dàll la man attekat bi waa ma matti yu ko waaye sa war waay bi yow abu zeydi fa fii raxli mu ngi sama laxas yow sa gërëm gi maa ko for waaye dàll bi moom maa ko moom kon fanaat buural yow abu zeydi li tasallumi naqatika pour jël sa gëlëm ga wafaal defal al xayra xiiw baasa bi taqatika sa kamtalaay kàttan mu ne ko sa gëlëm gi mu ci man waaye daal bii moom ngeen ngeen werante mooy sa gëlëm ga sama daal la demal jël sa gëlëm ga loo mën a def ci lu baax na nga def ko fa xumtuma daal di jug wa xultuma wax abu zeydi ne ma ko uqsimu maa ngi gëñ bil bayti ca kaaba ga atiqi ga aji jiitu ndax moo njëkk ci waaw tabax yi yàlla tabax ci kaw suuf dil mhm. xorami kay borom ak xorma ya wa taayifin ak way wëriya alaakifin yewee sax fil xarami ci xaramu màkka ja yàlla nañ ci bokku innaka naka yow neema baax na man ka nga xam ne wax takk mu dañuy atteloo ilay jëm ci moom yow yaay ki gën ci képp ku ñu atteloo wa xayru qaadin yaa gën ci attekat yi nga xam ne ni xakama atte nañ fi enri bi waaw ci sàmm yi rek laa wax de wala ci kaw wala ci baadoole yi enri bi mooy jëmu enra moo ñuy dëkkee ci àll ba attekat yi àll àll bi daal yaa ci gën faslam yàlla nga mucc wuddum yàlla nga sax dawaama naami fekk comme sax ak baa wa naami ak juru kër fekk juru kër yaa ngi sax ci kaw suuf banjul yaa ngi ci sax ci kaw suuf yàlla nga fi nekk yàlla bul bu fi jug loolu la Abu Zar wax attekat ba faajaaba attekat ba tontu min xëyri rawiyatin ci lu dul xelaat wala aqdin niyatin du caagin fas yéene maanaam teewul xelam daal attekat bi nekkul fa di xelaat nekkul fa di teewal xolam aqul niyat fas yéene mooy mu teewal xolam maanaam xelaatul rek waxaala mu ne ma juji te yàlla nañ la fayaan sukari ka sa sant gi xëyran yiw yam na am min yow sama doomu bàyyi tax is ngir lastu nekk mu astawjibu di waral sukuran sant goo xam ne yul tasam yul tasam danañ ko ne ko yàlla na yàlla sa sant gi ah man defuma lu ñu a sant ndax charul ana mi ku xëy si mindee fi man mooy ki nga xam ne isa tuqdiya buñ ko atteloo zalama mu tooñ summa man topp ko nga xam ne usturiya sàmmuloo nañ ko falam yaraata sàmmul alxoroma xorma ya koo xam ne respecté wut kenn mu ne kooku daal mooy ci mbindeef bu àttee tooñ faale wut kenn kon nag man su ma defee ni a def jërul ñu may sant waaye nag ni shukra alal waajibi sant daal ci lu la war la ko lañ lañ la ko lañ la def ndax am na ñu xam li leen war te defuñ ko rek laa wax de ate ka bi fa zaani ñaar ñii mooy koo xam ne bu àttee tooñ buñ ko sàmmloo du sàmm horma ñoom ñaar wal kër bu ak xaj sawaawun way xem wala fi xiyami daraja ñii daal ñoo xaj ñoo xem suma ma in moo topp àttekat bi nag nafaza wóyal na benn yi dayee sama kanam man ka nga xam ne sallama jébbal na naaqata gëlëm gi ilayee jëm ci man wala même tan te ñaaxul alayee ci man mu daal di xebal na ku ma andil gëlëm gi ñaaxul ma nekkul foofu di naan ma sulul woon man far waxtu ma daal di gontu nag naji al arabi jaaji fajo ak ak ajuru maa ngi diri zayla tarabin bi ceeg kontante maanaam yërëb kontante waa xulu maa naan ya maa ngi naan yàlla naa jibi ndaw kimtaan ndax dëgg bi histoire la xaala mm-hmm, mm-hmm. woon alxaaris ibnu hammam xaaris ibnu hammam ne fa ma loo ñu ko tallaahi maa ngi gën ci yàlla laqad laqad atrafta indi nga lu yéeme wa harafta xaabaabal nga bi ma harafta ci li nga xamle dëgg dëgg nga tagg gu looloo di xabaabal guddal ngay ci li nga wax fa naasattu ko ma jibtaani ko allah yàlla maanaam ma laaj ko ci yàlla ne ko al alfayta ndax mos ngaa dajeeg asxara ku gën a njabar min ko ci yow balaa xatan ci jotal waax sama rafet si yaa xatan ci tëgg li lafzi ñeel baat ma ne abu zeydi maa ngi lay lentalu ci yàlla di laaj ndax mos ngaa gis ku la gën a ku wax ju rafet bu mel ni njabar ndax mos ngaa gis ku ko dàq baal yi nii way tëggee mu rafetee nii ndax mos ngaa gis ku ko dàq gën la ko rafetle fa xaal abu zir ne allahuma naam waaw allahuma naam moo di waaw rek de allahuma ake naam waaw gis naa ko mu ko dàq parce que tamit déglul wanaam te nga mu di ko nettali beneen histoire nag maqaam bi moom ñaari histoire la ci nettali wala ñett sax mu ne kuntu nekkoon na azamtu di dogu ina athamtu ba ma demee tihaamatu moo di wàlli makka ala an taxisa ci ma jàpp ala an attaxisa ci ma jàpp zainatan ak soxna ba ma demee tihaamatu dama fa bëggoon soxna li takkoona pour mu nekk pour mu nekk mooy ne te ndaaji dimbale lii ñeel ma fay na tax yéen a bam ràññee bam bam ràññee ko alxit bu kañuy labat alxit bu mën naa nekk jigéen ji ñuy labat ma naa nekk góor goy labat it al muli bu baaji sax ba ma demee daal ba gis ndaw su may labat wakaada mu xaw al amru mbir mi yastatibu di mat mbir mi dem bay mat nag afkatu laa xalaat fikral mutaharrisi comme xalaat ak aji moytu mi ne wax mi ci njumte ci laa xalaat xalaat kuy moytu njumte al mutaamilu ku aji setantal kayfa masqitu sax naka la rotuwaayu fett ba wala kayfa masqatu saami naka la rotuwaayu fett ba rek laa wax de maanaam muy xalaat daal ci tànn jigéen ji ndax war na koo takkam waru koo takk ak bu ko takkee luy xew loolee naka la rotuwaayu fett ba wa bittu ma fanaan laylati sama guddi un naa ji di diyaale ak alqalba xol almuazaba ba da bañ bugal guddi gi yëpp may may may eh, nelaw nag di xalaat mbaa du ma am jafe ci takk gi wow xalli bu may jàllar bi alance ma dogu al muzabzaba ba damañ déng déngil maanaam daal may dama ko dikk daal ma takkam bu ma takk ilaan ajmaatu ba ma dogu alaan usira ci ma njël wa ushawiru ma diisoog awala man ubsira ubsiru ka ma njëkk a gis mu ne ma dogu sama xol daal bu fajaree naa jug ki ma njëkk a gis rek dajeeg moom ma diisoog moom fala ma xawadat ba mabbee azulmatu lëndëm gi at naa ba ay buumam ba nga xamee gi dagg na ay buumam maanaam guddi gi jeex na walat mu dëddu asoo bu biddiw ya walat mu dëddu asoo bu biddiw ya as ba ay geenam ba nga xamee ne biddiw yi dégg nañ seen geen maanaam biddiw yi fàdd guddi gi jeex na xadawtu ci laa xëy nag ca fajar xudduwal mutaxarifi comme xëy aji laajte wabtakartu ma teel ibtikaar al mutaayifi comme teelog aji jajji ñenaaw ñenaaw dañ laan def ñoom buñ laan dem fenn rek dañu dem dàq picc mi bu jëmee ndeyjoor ñu ne waaw baax na bu jëmee càmmooy nag waaw ñu ne loolu baaxut man ma teel a xëy rek comme teel a xëy kuy dàq ñenaaw fan baraamu daal di buur wala mu gaar li ñel ma yaafiwun ak ndaw mooy xale boo xam ne am na fukki at wala mu jege ko fii waji nekk ci kanamam saafun aji tenu aji tenu mooy lu ko musal maanaam dafa rafet kanam gi dafa rafet ndax borom kanam gu taaru kat amaana boo bëggee def dara nga far ko rus kanamu xale bi noonu la mel fa teye man man dégg nga fa mantu ma daal di barkeelu bi man zari ci xool waaye man bahij ji aji taaru ma ne ah, xale bu rafet bii kay mooy kon waaw barke dana am rek laa wax kanam gu rafet gii ma dajeek kooku barke la wastaqdaatu ma koccal rayoo xalaatam fi tazwiji si takk soxna ma laaj xale bi nag lan mooy xalaatam ci lan laa war a takk daje xale bu yéeme nag mu ma diisoog moom fa xaala xale bi ne ko awa ma nax koy sàkku awaanan mu di jeeg am wala jànq goo xam ne toxaana danañ jànkuwanteeg moom coono de xale bi ne ko jéeg nga bëgg a takkam jànq booy jànkuwante moom coono nga bëgg a takk xale bi daal di ko laaj daal Abu Zayd ne ko fa xultu ma ne ko ixtar tànnal lii ñeen ma maatara la nga gis ma ne ko tànnal ma rek yow doo gis baax na faqad alqaytu sànni naa ilayka jëm ci yow alwara buum ya xaale xale bi ne ilaya jëm na ci man attabiinu leeral waalayka waaye war na la yow attaayinu ràññe la rek laa wax de qalbi ne dégg nga dégg nga man maay leeral dégg nga dégg nga xale bi ne bàyyi ma leeral yow yaa ràññee nag man mën naa leeral la jànq wala jeeg ku ci gën waaye yow nag yaa xool ko ci takk loolu la ko xale bi wax dégg nga bu paree mu ne ko fas maa déggal nag ana man af dii ka dinaa la jot baana daf ni ah di ko gannaaw suul say noonu dégg nga danaa suul say noon yëpp xaar la ba yow dara du la jot loolu waxin la rek amal bikku xale bi ne ko waaye jànq fa duratu mooy wurusu duru wa almaxsunatu ba bañ denc jànq daal mu ngi mel ni wurusu duru wuñ denc mosuñ koo génnee wal baydatu mu ngi mel nen almaknuunatu ak almaknuunatu ba da bañ nëbbu jànq daal comme nen buñ nëbbu tilimut dara musu koo laal wal baakuuratu mel ni njëlbeenu meññet aljanniyatu bi aji ñor jànq daal boo bëggee xam nu mel mu ngi mel ni meññet bi njëkk ñor ci eh, gàncax gi ñor xomb dara laalu ko dégg nga wasulaafatu comme sàngara alhaniyatu jaal ji neex mu ngi mel ni sàngara su neex soosu daal noonu la janq mel wa rawdatu mel ni toolu dër al unufu gaa ji ñoŋ mooy koo xam ne kenn sàmmut fa kenn musu faa sàmm toolu dër bu kenn musu dugg sàmm jànq noonu la mel wa taw ko comme càq alladi bi nga xam ne sa mun a bëri na njëg wa te tedd jànq daal boo ko bëggee xam mu ngi mel ni càq boobu nga xam ne njëg gu foor la amee tedd lool lam yu dani ko laamisun aji laal wala staxshaaha te dikkalut ko laabisun aji laal maanaam aji takk jànq daal mooy koo xam ne kenn mësu koo takk kenn mësu seeg moom wala maarasaha dégg nga jànkuwaatu jànkuwaantiwut ak moom aabisun aji fo moy ko xamne kenn musul fo mom rek laa wax de ba de retam mu ngi ànd ak ndawam wala wakkasaha wut ko taamis nu aji bet, manam aji dindi ndaw kenn musul dindi ndawam ga mu ngi ànd ak ndawam ba léegi wàññeekuwut kooku koku modi jank wala ha ñel nak al alwaju kanam alxayi jam kersa wa tarfu ak bet, al ba aji nebu bo bëggee xam nu jank mel mooy ko xam ne kanam nga dafa bëri lu muy rus bët bu la xoolee rek daal di ko sëgg ndax bëri kersa wa lisaanu mooy borom làmmañ ba alaa yi baa lottu mooy koo xam ni pànkut bëriwul wax wal wal qalbu mooy borom xol ba an naqi baa ji set xol bu set la am moom jànq ndax bëriwut pexe bëriwul xor ndax xamagul ko sax de summa hiya topp moom addumiyatu mooy comme nataal ba al mulaahiba ba aji foxe dafa mel ne rek nataal guñ nataal mu rafet lool te dafa lay foxe dégg nga wallu wallu batu moo di foxe kaay ba al mudaahiba ba aji foxonteeg yow jànq daal mooy comme foxe kaay buy foxonteeg yow wal xasaalatu comme kéwal ga al muxaasila gi aji béej béejanteeg yow mooy comme dafa mel ni kéwal dafa rafet ba mel ni kéwal gi aji waxtaan ak yow wal mulxatu mooy aji xoromu ja alkaamila gi aji mat wal wishaa mooy caq ba ak taayiru bi aji laab jànq daal mu ngi mel ni dégg nga waa ji xorom lu xoromu mat loolu mu mel ni caq bu laab boobu alxasi bi bi aji xees mu mel ni caq bu bees rek laa wax de amul benn màggat wala lu tilim dafa koy wax ni jànq mel ak ni jànq eh, jéeg mel wa daji mu aji tëddaaree allaji gi nga xam ne yusib bu daf lay delloo ci ndaw dégg nga waaw wala yusibu waaye du la be jaawloo mooy ko xam ne boo tëddeeg moom boo dellu ndaw it doo be jaaw moom mu ne ko nii lii mooy taaru jànq bu fekkee moom nga bëgg waaw ma sëyi bu waaye jeeg fal méttiitu mooy war waaye ba almuzalala ba da bañ tàggat mu ngi mel ni fas ñu tàggat ba mokk moom moom kenn du ko jàngal dara mën na lépp walloonatu mooy heggali ga almuajila ba da bañ yàkkamti heggali mooy la ñuy indil gan ci ñam balaa xañ ba di ñor loolu mooy loonatu ko musaaye maanaam moom neex naa jot rek moom bëriwul affaire da ngay jël rek joxe jànq yi noonu la jeeg noonu la kon wal béxeetu mooy càkku tébbal musahala ba da bañ yombal ah moom lu yomba lu la booy dem rek mu yomb ñaare du jafe wa tëbbatu mooy aji xam ja dégg nga al muallila gi aji wéttali jeeg daal mooy koo xam ne ni moom ku am expérience la ku am xam-xam la ci muy def te daf lay wéttali والقرينة موي أجي لنك لوجا المحببة المتحببة بأجي صفو دينغا جيك موي كو خمني قرين لا بلا صفو لول دي عندك يو والخليلة موري قرين با المتقربة بأجي جيكي وسناو ما أجي قرر لجا ما يكون يو من اللي المدبرة كي أجي دخل بيري والفتنة ما يبرم قلبا المختبرة بأجي أم إكسبرياسي مريب نون لا جيمل ثم إنها توك مو مجالة راكبي ما يهجلك أجي وار مجالة ما نيخم لجا نيوري يوب لك كم تاندر ما يك فرماسي يك فيربي يك يخم غني دوتوغ أنا دفن يخجر واحد جينا يوم يوم الخطاب موكو وخل daf ne al bikru kal burri tatxanuhu wa taxjinuhu wa taxbisuhu wa sayibu nag ujaalatu raakibi tamrun wa aqitun wa sawiqun xumar ne jànq comme peppa mburu faw nga dëbb ko mooñ ko defar ko mburu door ko jëriñoo maanaam dafay alaaj defaraat daal jànq waaye mun a jeeg mooy li nga xam ne nii ku aji bu yàkkamtee mën na ko jël yóbbu comme tàndarma ak fromage ak cere yeeg moo it loolu la wax mu ne jéeg noon la mel woon suutatul xaati bi mooy fasu recintalu aji labat fasu recintal xam nga ne lu neex a dindi la waaye jéegit lu neex a jot la rek laa wax de wa qondatul ajisi mooy war waaye aji lottu jeeg mooy war waaye ku lottu koo xam ni amul doole moom bu amee jabaru jeeg du am problème ndax fere yi bëriwul mu ne Mm. ak jéegam wa nusatul mubarisi mooy occasion aji geer jéeg daal mooy occasion aji geer li wax rek mooy dafa neex ku bëgg seeg moom daal yomb na bu teg jànq harikatuwa jegeñ jegeñ nam ba jegeñam ba layinatun aji nooy la ku nooy jegeñ mooy koo xam ni ku neex a la wow xalatuwaa ak fasam xëy netun aji yomb la jéegi lu neex a téye la wa biir mbiram mu tëbbayi netun aji leer la mbiram it lu leer la wa xidmatuwaa ak liggéeyam mu zëy netun aji taaral la bu la liggéeyalee liggéey ju rafet la koy def moom jeeg lii la ko Abu Zayd wax mu ne woo ko mu maa ngi gëñ laqad sadaqtu dëggal naa fi naax tey ni ci ñaari melo yi wa jalawtu wuññi naa almahaatayni ñaari nagu njaaxal yi ah wax naa la ñaari jigéen ñëpp nuñ mel jànq ak jeeg léegi nag fa bi ay fa bi ay fa bi ayatihima ban ci ñoom ñaar xaamala gërëm xalbu ko sa xol waala ayatihima ak kan ci ñoom ñaar xaamala jug rubbu ko sa bopp sàkkara xale bu ndaw buy wax li am mag hmm, xam nga xale bu yara di ko ne ko a ah, wax naa la ñoom ñaar ñëpp daal nuñ mel léegi nag koo ci bëgg xaala woon abu zeyd ne fara ay tu ma gis ndaw la jën daratal mu di xeer woo xam ne yettaqihaa dana moy moytu almuraaji mu aji sànni wante ma ne ah, kii kat xale boo xam ne nii xale bu ñu war a moytuloo comme xeer woo xam ne kuy sànni wante na ko la ko sànni watud ma day nàccil bi aa ci moom almahaajimu min haa ci moom kon almahaajimu waaw ndabi nampal ya xale la boo xam ni daal ku jëflante moom daal man nga ci am jafe-jafe dégg nga ilaa andi lu man xultu wax naa loo ñeel ko kuntu nekkoon naa sementu di dégg Abu Zayd ne ma laaj ko ne ko man de damaa déggoon ne anal bikra naka jànq ashaddu moo gën a tar xubban ci mbëggeel waqalu moo gën a néew xibban ci wor man li ma déggoon xibban ci wor man li ma déggoon mooy jànq moo gën a mën a bëgg te moo gën a pexe ah bi ne ma fa qaala xale bi ne la amri gën naa sama dund laqad xiila waxeef nañ haza lii walakin waaye nag kam xawlin bëri na wax joo xam ne aza lor na abu xale bi wax abu zeyd na ko ah loolu de gars wax nañ ko waaye bëri na wax ju lor doomu aadama yi ndax du dëgg way xaka yërëm naa la hiya waaye moom janq mu ngi commencé di xas nag ku nekk wax na tagg yu am ci moom mu ngi wax nekk ci moom waaye jànq al muhratu moo di al abiyatul inaani gaa ji bañ ak buum maanaam goo xam ne nangu te xommatu jànq daal kom mool woo xam ne nii moo ko de tey mu jaar góor suba mu jaar duraat gannaaw suba mu jaar fu ne ngay jubbantee ko def lu mu ne noonu la jànq mel wal matiyatu moo di waruwaay wa al batiyatul isaani bu yéex ak xommatu waruwaay la goo xam ni pour mu xommatu du yomb maanaam balaa mu topp cent pour cent ni nga ko bëggee dana jafe de mu ne ko noonu la jànq mel wa zandatu mooy doju béy ba al mutaasiratul iqtidaay bu jëfee tàkk janq daal mooy doju béy bi nga xam ne nii bu jëfee koccal balaa nga woo taal da nga sonn maanaam moom daal balaa moo mel nu la neex nga xaw a dee wal qanaatu moo di tataga al mustasabatu iftitaayi bu jëfee ubbi jànq daal mooy bu tatala nga ne naqari naa ubbi maanaam balaa ngaa jot ci moom da nga xaw a dee it su ma inna muna maunataa topp coonaam lu bari la wa maunataa te ndimbalam yasiratun lu néew la jànq mooy ki nga xam ne nii coono bu bëri moo nekk ci moom ndimbal lu néew coono bu ndimbal lu néew waaye salata ànd ak moom nag salafatun dégg nga lu néew xiw la jànq ànd ak moom lu bëriwut yiw maanaam bëriwul njëriñ wala boo nga ne lu jégg doyo la rek de mën naa firi lu jégg ak jànq daal dafa mel ni taw bu bëri taw boo xam ne ndox mu tuuti la dënn yu bëri noonu la mel coow lu bëri waaye njëriñ lu tuuti rek wa daalatuwaa ak njeegetam mu këllafatun luñ togg coono la njeeget mooy jonge jonge lu gu may def ak yooyu muy def mu ne loolu lu mën a sonal la waaye daa loxoom xarxaaw lu cuune la maanaam mënul liggéey xamul nu ñuy doxalee mbir yi comme cuune rek de wa fitnatu a fitnaam sammaaw fitna su tëx la fitnaay jànq neexuta rek le rek laa wax de mu ne dafa mel ni jaan joo xam ne nii mooy xayatu sammaa mooy jaan joo xam ne nangut ku ko mocc waaye jànq it jubbanti ko yombut ñaareel du nangu sax ku ko jubbanti far waarikatuha jegeñ ba xas naa aji ñagas la mooy ki nga xam ne nii ku naqdee xommat la borom jegeñ bu nooy mooy ku neex a xommat waaye borom jegeñ bu jegeñ mooy ku naqdee xommat la ci bëgg a wax wala la tuha guddeem lay laaw tar la guddeem dafay lëndëm maanaam ab fitnaam dafay dafay tar waaye it bu mere it mu métti wa fi riyaadatiha nekk na ci tàggat ko ana un coona jànq mooy ki nga xam ni pour nga ànd ak moom waaw ba mel ni nga ni nga bëgg kooku coono bu bëriñ ci rek laa wax de wala xibrate a nekk na ci xam ko richaaun ak muuraay xam jikkoom dëgg-dëgg yombut ñaareel doo xam jikkoom ndax balaa ngaa xam jikkoom rek nga ànd moom lu yàgg-yàgg waaw moo tax teel koo xam du yomb wuteeg jéeg nag moom mel na nam war a mel ba pare wa taala ma axsat yàgg naa al munasira ka aji liwaatoog moom maanaam ka aji guerre dégg nga wa farikat mu bañ al muxaasira ka aji beej mooy kuy kafanteeg moom dégg nga wa axnaqat mu daal di merloo alxaasira aji caaxaan wa adraat mu torox toroxal al faniqa kuy al basira gi aji naaga mooy goo xam ne dugg na caatam juróom-ñeenteel kuyam gëlëm faniqa kule kuyam gëlëm la ah mu ne jànq mooy koo xam ne yàgg naa gàcceel jàmbaar ju jàmbaar juy geer maanaam jëkkëram la ci namu yàgg naa bañit kuy foo ak moom di waxtaan moom yàgg naa merloo kuy kaf moom yàgg naa toroxal mm, kilifa gu mag su ma innaha topp moom alati mooy ki nga xam ne taqul day wax naan ana man albasu danaa sol yére yu rafet danaa sance comme niñ koy waxee waaye li su toog di sinap ñoom noonu lañ ciy teg faatlu bu may sàkku nag man yu luqu kuy booyal waaye abisu te muy téye mu ne jànq daal la muy wax daal mooy man daal sañce laal performance di sinap wut jëkkër joo xam ni nag day defa ko dindi mën naa bàyyi ku ko neex téye ku ko neex borom sañ-sañ daal laa bëgg mu takk ma kilifa ñoom daal loolu lañ fi nekke lii la waa ji wax Abu Zéri de ah Abu Zéri commencé découragé wu nag xam nga taggal na ko jànq ak jeeg ah waa ji ne ko Abu Zayd laaj ko xalaat mu xasal ko jànq Abu Zayd ne fa wax loo ñeel ko loo loo gis nag fi sëy bi ci jeeg yaa aba tayib yow Abu Tayib waaw loo wax ci jeeg nag fa qaala xale bi ko way xakk way yërëm naa la a taraxabu ndax da ngay xemam fi fu daalatin ma akili si desitu lekk lekk guñ lekk ba des looloo di jeeg wa sumaalatil mana wa sumaalatil manaahili ak ndesitu naan waaye naan guñ naan ba mu des daal looloo di jeeg wa libaas ak yére al mustabzal ba da bañ xar jeeg daal bu doon yére nga ne sol nañ ko ba commencé naa xar ndax bëgg nga loolu wal wi ak ndab la al mustaamala ba da bañ jëfandikoo jeeg bu doon bool la nga ne yàgg nañ koo jëfandikoo wa zawaaqa ak moskat ba almutatarifa ki aji xemam góor ña almutatarifa mooy koo xam ne dafay dafa day jé góor gu ne daal ma ngay siq ak moom saxu ci jëkkëram rek mu ne looloo di jeeg wal xaraaja ak génnaakoon ba almutasarifa ka aji soppandiku koo xam ni saa yu ko neexee génn lu ko neex mu def faayul kenn kookoo di jeeg wala waqaa ak ba ak ba ak aji ñàkk kersa ja almutasalita ki aji pànk jeeg daal mooy koo xam ne amul kees lam yu tal la xamee nag pànk lool mën a xuloo wala ko benn ne la ñaar fukk wala moo tekki rek aji mm, dégg nga intikaar intikaar mooy mu denc denc da nga am ba mu seer nga jaay ko loolu mooy al mu mer jeeg nag loo ko jox moom mu dem denc sa koppar foom fooram du la dimbale ci dara loo jox rek mu denc waaw te mën mer nak di tawar rek nan joxoo ma dara mu ne jéeg nii nii la mel kon de xuma abusir nu muy su ma kalimatu a topp baatam mooy kuntu nekkoon naa wa surtout mujj naa jéeg daal danaa la man de sama jëkkër ju njëkk ja ay waay ko kenn du moom waaye de ba ma ba ma yow ba léegi moom maa ngi mujj mel nii nga xam ne kenn xamut waxtaara ma bu xee yàgg nañoo bewaan ci man fa nu surtout ñu dimbali ma jéeg loolu rek lay wax ah man de yàgg nañ maa def nangam bi ma defee nangam waaye ba ma yàlla nangam di bàkku rek tagg ju jëkkër ju jëkk ja ak fàttaliku ko lay def pour pour lan pour xeeble yow wa setaana tàqalikoo na benn yow mi diggante tey wa am si ak démb jeeg daal dinaan ah tey ak démb daal du benn waaye nag xamaru ana weer mi ne sam si jant ah xam nga ne weer du dara ci kanam jant maanaam sama jëkkër ju njëkk ji daal du sa morom loolu lay nekk di wax wen kaana dem nekk na alxannaana di borom jëkkër nag joo xam ni daf ko bëggoon lool albaruka tey borom doom ju mat mu kalaf wa tamaaha nekk séeneen kat maanaam ku xemam góor ñi alxaluka kay caga xaluk mooy koo xam ni dafay daanu ci góor ñi xiir xiir lool ci góor mu ne jeeg bu melee noonu fay moom alxullu mooy gëx alxamili gaa ji teeñ kooku moom dafa mel ni kuñ xeew kuñ xeew loxo yi ca doq gala buum nga far teeñ nag far muy ñaari musiba mu ne kooku moom bee baal mooy li gën a bon amoon jëkkër bëgg ko lool ba am doom ji mu kalaf waaw xemam góor lool di caga nag mu ne kooku moom sànnil ci àll ba wal jurhu mooy gaañ-gaañ alladi bi nga xam ne laa yeen damiru du wér kooku daal bu la am sikk sàkk ne gaañ-gaañ bu dul wér la lii la wax fa qultu ma wax loo ñeel ko faal tara ndax dana gis nag ana tara xaba ma làbbewu nga ne ma jànq xasal nga ma ko jeeg xasal nga ma ko kanaa kon léegi damaa war a làbbewu jàpp diine làbbe mooy bu ma soxna waaslu ku ma suubu hadal mazhab bi lay yoon mooy yoon làbbe fan taxara nii xale bi gëdd ma <laughs> xale bu yéeme ngi nii intihaar almuaddibi comme gëddu aji yar inda zallatil mutaaddibi ca jamono tarxiisa ka mu yar mu gëdd ma comme ku yaraate ni ñuy gëddee ka mu yar bu juumee su ma xaal topp mu ne ma woy xakka toskare ñeel na la a taqtadi ndax da ngay roy bi ruux baani ci làbbeya wala xuta dëgg xadista baana leer na u fil cëm mbas lakka ñeel na la wali waani ra'yika raayika ak doyadi sa xel mu doyadi mi daal mbas ñeel na ko maanaam cëm wa tabban toskare laka ñeel na la wali ulaayika ak labbe yooyu nga xam ne du ñu am soxna ñoom ñëpp toskare aturaaka ndax ndax danañ la njortu maa samante na déggoo bi an na li mbir lay mbir te mbir laa rax baani te déet labbewu fi lislaam ci lislaam mu ngi koy junj xadis bi wax ne laa rahbaaniyata fi lislaam lislaam amul ñàkk takk soxna ngir ne da baax wala da ngay jaamu yàlla aw ma xuddista ndax nettali wuñ la bi manaaki nabika ci denceg say yoon sab yonantu ale yàlla nekk si moom aska salaam yi selli xewal nuyoo bi gën a sell yàlla nekk ci yonent bi xanaa yëgoon ne yonantu takk na soxna xanaa nett luñ la loolu su ma ama taalam kanaa xamoo ana al qarinata na soxna beneen maqaama mu ne ana sakana na soxna ñaari soxna lay firi asaaliha gi aji baax tarubbu dafay defar baytaka sa kër soxna su baax day defar sa kër watu labbi muy wuyu sawta ko sa kàddu boo ko xooyee rek mu dal di la wuyu wa taxuddu muy gëmmu tarfaka sa bët dana tax dootoo xoolati benn jigéen watu tayibu muy teel arfaka sa xet maanaam day tax ñëpp di la tagg di wax ci yow lu rafet ndax dana la suturaal wa biyaa ci moom taraa ngay gisee qurrata aynika lay seddal sa xol moo di sag doom wa rayhaanata anfika tey xetuk sa bakkan moo di doom rek wa faraata qalbika tey mbégteeb sa xol wa xulda zikrika tey béeral sa tudd maanaam dana tax ñëpp di tudd boo dee sax mu ngi mel ni deewoo loolu lépp moo di doom wa taillata yawmika te mooy miisal sa tey mooy sungandik sa tey waxa dikk ak sa suba mooy tax waaw nga mën a fàtte lu bëri waaw naqar yu bëri waaw mën génn ci yow tey ak suba kooku kooku dooma koy waral mu ne doom soxna nga koy jëlee fa kay fa raxibta naka ngay sibee an sunnatil mursalina ci yoonu yonent yi fu mutaatil mutaahilina ak xéwalu borom soxna ya te moo di soxna loolu noo ko mën a sibee wa siraatil wa siraatil muxsanina ak yoonu way sange wu way sange wu ñi way sange wu mooy ñaam soxna rek de wa majlabatil maali ak bijjukaay alal ndax soxna dafay tax nga mën a liggéey pour wut alal wal banina mooy bijjukaay doom ci ngay jëlee doom ndax da bañ loolu wallahi maa ngi gën ci yàlla laqat saa ani naqari na ma fii ka ci yow maa samatu la ma dégg min fii ka ci sa gémmiñ li ma dégg sa gémmiñ gi kooku métti na ma suma arada topp mu dëddu maanaam woon ma gannaaw inraadal moxda bi kum dëddu kuñ merlo wa naza mu tëb nasawaanal unsa bi comme tëbug njéeréel mun dal di dem rek ba ma mel ni njéeréel guy naaw fa qultu ma wax law ñeel xale bi ne ko xaatalaka yàlla xalag la allah yàlla atantaliqu ndax da ngay boy mu tax baxtiran daa daagu wata daaw yi nga bàyyi ma mu tax yéren maa ji gërëm ndax da ngay daagu nii di dem ba ma ma gërëm xaw ma lu may jàpp yow waxoo dara lu leer fa qaala xale bi ne ko azum nu ko dama lay njortu te daa yi ngay woote alxayrata gërëm li tëj la da ngir nga dóor umayra sa bantu sàkkara watas tax nii nga doylu anil muhayra waris aji seer can ja jigéen ju seer can mu ko ah yow daal da ngay gërëm gërëm lu rek pour boo dégg nga demee ba sa bopp rek jël sa bopp sàkkara bi di ko fooyee di ko dóor ba génn man ni rek loolu rek nga fa bëgg a def waaw ndax doo joxe can gu seer man daal xam naa <laughs> xale bu yéeme ngi ne fa ma wax la woon ñeel ko abu zeyd ne ma ne ko xabax yàlla bon loo allah yàlla dan naka sa njortu wala achaba yàlla bu màgg loo na naka sa maas yàlla na yàlla bon loo sa njortu say maas it bu ci kenn màgg xam nga maasam gi bu ci kenn màggul moom du màgg maanaam yàlla boo gudd fan rek su ma roxtu topp ma gontaanu ci moom maraaxal xasyaani comme gontu gàcce ay ay aji rus kon comme gontu aji rus rek laa wax de wa tubtu ma ma tuub wala boog ma dellu min mushawarati sibyaani ci ci diisoo xale ya laa banak di di laaj xale di eh, xalaat dellu rus lool xaala woon alxaaris ibnu ne fa qultu ma wax loo ñeeku ne ko uqsimu maa ngi géñ man ci ka nga xam ka gott gott garab yu sëq annal jadala na werante ci yow ci yow xaaris ne ko ah maa ngi gën ci mi saxal gott ne ñaari wax yëpp yaa ko wax dajoo benn xale faaxara ba mu daal di jotal fi daxiki ci ree ba mu kontaan tarbatal mun xamiki kom kontaan aji nuuru ci mbir dégg nga su ma xaala topp mu ne lem nga wala tasal ta bu laaj nag lem daal mosal rek maral rek maral lem rek te bu laaj fu mu jógee commencé aussi bu di guddal fi madil adabi ci tagg adab wow fadlu may gënal raboo boromam ala di nasab bi ci borom askan ci borom alal kon nasab ci ci bu tooy bi mooy xaalis may tagg xam-xamu adab nag di wane ne ko am xam adab moo gën ko am xaalis wow moom abu zeri yanzuru mu ngi xool ilayya jëm ci man nazaral mustajhiri comme xool wa yox di muy jëlale ani ci man ixdaal mutamahili comme jëlale aji def nank aji teey mu may xool comme re xool ak ku may askane ci réer waaye nag di ma muñal fala ma afratu ba mu ëppalee finance biyeti ca parpar looga nag li lons bati ñeel mbooloo ma al adabiyati bi ka yu xam adab ba nga xamee ne nag ëppal naa ci faral borom xam-xami adab xaala wax ne lii ñe ma ne sax noppil wasma déggal mi ci man waf xaax te nga dégg te nga dégg rek laa ko déglu may nopp déglu ma xel fiqu mooy dégg xel samu mooy déggal nopp abu zayd ne ko déglu ma de yaquluuna danañ wax ne inna jamaalal fata naka taar ak ascam wazinatoo ak ak rafetaayam adabun mooy xam-xamu adab raasixun bi aji sax loolu lañu wax ñu ne xam-xam mooy taaral nit wa maa in yasin waaye du taaral si wal muksirina lu mooy ñu bëri alal de wa man ak ka nga xam ne taw da suudadihi suudadihi dajug sangam saamixun aji yëkkati nga nekk sangam moom dana la taaral bu la nga amaal lit wala daal boo ko rek xalal mu ne mu rafetal la waaye bu amal faqiru waaye ku ñàkk alqursu mburu wal kaamixu ak lañ cey diw mooy rënd fa xeerun moo gën loo ñeel ko mel ne ci xam adab mu ne waaye bu dee amoo dara moom nit ñi moom xam-xam du la rafetal mbu mburoog mburoog buur sax moo gën mu ne <laughs> moom léegi-léegi mu xas adab léegi mu tagg way laa xam-xam dara mel ni moom bu la bu la ci àdduna taar la ci àllaaxira waaye jamaalin ban taar la woo ko ñeel an yaqul an yuqaala ñu wax ne adibun borom xam-xam la yoo xam dana jàngale aw naasixun wala bindkat la mu ne loolu lu ci nekk sama xaala topp mu wax dana leer lakk ñeel la sit xullaa jëtti dëggu sama kaddu li may wax ni da xam ne dëgg la wa sinaaratu hujjati hujjati ak leer ak sama sama sama eh, ak feeñ ak sama lay sama lay wi dana feeñ na dëgg la wa sir naa ñu mujj dox nag laa na alu duñ gàttañ lu joodan ci kattan wala nastafiq wala nastafiq duñ xiqi jahdan ci coona ña ngay sonn lool waaye nag ñu ngay góorgóorlu di dox rek xatta addaana ba mu ñu lañu asayru dox ba ilaa xaryatin jëm ci dëkk boo xam ne xasa ba fàddu naa ci moom alxayri xiw dëkk boo xam ne lu baax nekku fa fa daxal naa ñu dugg ko lirtiyaar yi pour sàkku mm, dégg nga waaye wakilaana comme si ñun ñaar rek mun fi dun aji fëggu mina zaadi ci yóbbul xamuñ dara ñu dugg ci dëkk boobu nag pour xam lu ñu yóbbu nag fa ma in balax naa jotuñ المحطة واتي وايبا والمناخ أجيس وايب قلم قم ويفاني واتي قلم يا المختطة بربان دفل بورنا منام رد ننكو دفلكو بورنا بولمي قمنا فيه بور واتي وايلا أو لقينا بند جاك غلا من أبقلي لم يبلغ جتود الحنسة بكار ولا جنتكود ولا عاتقي نكنا تشم بقى مومون قلبة دغزون أغليو موي مات مو خمني ويا يوتو يبقى جاكسو ñu gis xale boobu nag mu ngi yenu matt moomu fa xayaaw mu nuyu ko abu zeydin abu zeydin taxiyatal muslimi comme nuyub julit wa saaloo mu laaj ko waqfatal mufimi comme taxaw ak ay taxawloo taxaw ak aji déggloo maanaam mu mu laaj ko ne ko na taxaw mu mu dafa wax xale bi na ko dafa ñaan xale bi na ko na taxaw mu laaj ko rek dara xaa fa xaala xale bi ne wa amma tasalu lan ngay laaj wa faqa ko yàlla na dëppale yi wala yàlla Abu Zayd qaala Abu Zayd ne ko ayuba ndax dañ jaay xawuna fii rutuba mënax bi xote bi ci ay xutba mënax mooy tàndarma ji tooy ndax fii boo fi xutba danañ la jox tàndarma xaala xale bi ne laa déedéet wallaahi maa ngi gën ci yàlla xaala Abu Zayd ne ko walal balaa du caagin binqal bil mulahi ci baat yu xoromu ndax boo fi waxee baat yu xoromu duñ la jox sa tàndarma gu ñoragul muy binqal xaala xale bi ne ko kàllaa mukk wallaahi maa ngi gën ci yàlla. <laughs> Eh, dafa bëgg wax ne ko fii adab jëru fi dara xaaral mu ne ko wala samara du caagin meññet bi samari ci ngoom laan boo waxtaanee noonu guddi du la jox meññet xaaral xale bi ne ko xeexaatee ko sori ñu di la ko jox wallaahi maa ngi gën ci yàlla mu ne ko wala naasaa yi du caagin ay laax bil xasaa yi ci ay xasida boo fi bindee xasida duñ la jox laax. <laughs> Eh, xaala xale bi ne ko uskun noppil <laughs> afaaka yàlla jàmmal la <laughs> allahu yàlla xaala mu ne wala saraay du caagin ay cere <laughs> dégg nga wala saraay du du caagin cere bil faraay di ci baat yu néew ya baat yi nga xam ne baat yu raar la boo ko génnee ci dëkk bii wax ko nit ñi duñ la may sax cere xaala xale bi ne ko ayna yuusabu fan lañ jëmee bi ko ci yow maanaam ci saa li mooy ayna yuusabu bi àqalika fan lañ yóbbu sa xel mi xanaa da ngaa dof arshadaka yàlla na jubal la allahu yàlla ayna yuusabu bi ko mooy xanaa da ngaa dof ci olof arshadaka yàlla na jubal la allahu yàlla fii kenn du la fi jox dara xaala abu zeyd ne ko wala daqiiqa du caageen sunguf bil maana ci maanaa daqiiqa gaa ji sew maanaa yi قال قلب لك حد باي انا هذا تشلي اصلح كيانك يوين الله الله يلا واستحلا من يخلو ابو زيد ابو زيد تراجع سؤالي دلن لاج دي جواب تونت بي ابو زيد موم لم بغ موي لاج تونت وتكايل ان تلانتي من هذا الجراب شي بلمبوس مانام دي دي وخ قلبي تونت ولا ما حمو گندكو مانام مو گيس الغلام قلبا ان شوت نورغ باتينو اجي سوري لا بو في نيكني برانيو پري دنا ياگ وشيخ مك مانك سويتينو اك شيطان لا mu ne mën ngaa wax suyaytiin it am na yeneen nusxa yi suyaytiin la def mag mi ak seytaane la fa qaala mu wax loo ko xas ko doy na la yaa cheikh yow mag mi laaji doy na xad araftu xam naa fan naka sa fànn wa sabantu birlu naa an naka sa dëgg-dëgg naa li nga bëgg mooy ñuy laaj ak tontu rek sa dëgg-dëgg mbir xam naa ko fa xus jël al jawaaba tontu ba subratan mu di jóor baal ma tontu lu ko yëpp benn yoon rek ñu dajale ko waxta fi na nga doylu bii ci moom xibratan ci xam-xam jëlal loolu mu di waaw mu di mu tontu ba amma bi haazal makaani waaye bu dee barab bii moom falaa yustara duñ jënd achenro way bi chanratin ci saaño way lu mu rafet rafet du ci am saaño wala nasru du caageen wisar bi nu saaratin ci tasaarit wisar boo ko defoon duñ la jox tàndal ma yuñ tasaare wala lu mu mën a doon daal ولا القصص دو تاغي نتلا اي قصه بقصاصة تلال توي بو في نتلا اي سواري لو تولي لال كان دو لكو جوخ ولا رسالة دو تاغي ليتر بقصاصة تي فوتيت بو في بنو ليتر بي غنا رافيت كان دو لكو جوخ ولا حكم لقمان دو تاغي كم كم لقمان بلقمة تي تبو بو في نتلا كم كم لقمان اب تبو كان دو لكو جوخ اب نياك ولا اخبار الملاحم دو تاغي خبارو تنتي رو خريه bi laxmatin ci ak dogitu yàpp dégg nga xare yi nga xam ne nii waaw daan na xew boo ko fi nettalee du ci àgg ñu jox la dogitu yàpp waaw maa jiilu hasa zamani waaye maasu bi la jamono fa maa minum amul si ñoom man ka nga xam ne yemiixu dana may isa seexa nem tëgg nañ loo ñeel ko almadihu tagg ga jamono ji moom amul si koo xam ne boo ko taggee mu may la wala man du caagin ka nga xam ne yu jiisu dana joxe neexal isa un nem sadd nañ loo ñeel ko rajiitu rajas ja amul koo xam ne boo ko wooyee ci baaru rajas mu jox la neexal wala man du caageen kaa xam ne yuxiitu dana xettali isa atara boobu bu ko kontaan loo alxadiisu waxtaan jamono bii moom koo xam ne nii bu ko waxtaan wi kontaan looyee mu may la mu wala mu xettali la amul fii wala man du caageen ka nga xam ne yamiru dana dundalee wala annahu di la moom la am amirun buur la fii amatul kuy dundalee di la ab buur la rek laa wax de waaye doom ci ñoon jamono ji mooy anna masalal adibi naka misaalu borom xam-xamu adab ka rab yi comme pàkk al jadi bi bày ji beekoor xam-xamu adab daal ni mel mooy borom pàkk bu beekoor rek laa mel ni koo xam ne nii rek waaw ku nekk ci beekoor la illam dégg nga tëjut ndem tawalut araba pàkk ba diimatun am niir sax diima mooy taw bu sax mu bu fekkee xewal wàccut si pàkk boobu daal si borom xam-xam boobu lam takun nekkul loo ñeel wu qiimatun benn daraja borom xam-xamu adab dafa mel ni pàkk bu beekoor bu fa ab taw wàccut ba mu sax gàncax du am daraja waaye borom xam-xam kese bu amul xalal kenn du ko faale wala daanatu du ko jege mukk bahimatun bàyyi ma pàkk boobu bu yàlla ji tawul ba mu sax gàncax bàyyi ma du fa jege borom xam-xam it waaw bu amul xalal ñaare nit ñi duñ ko jege wa kazaa naka ni la adab bu borom xam-xamu adab illam yaadudhu nem dëgërul ko nasabun xaalis fa darsoo jàng ko nasabun coono rek la waxas nu ko xasabun comme poñit poñit mooy matt yu ndaw yi sànni safara ci poñit yooyu loolu la kon mm, xale ba su man sa dara topp mu gaaw yaxdu di daw wa wallaa mu dëddu yaxdu waa dégg nga waa mu dëddu yahdu di mang mang moy moy wayal gëlëm gi wala mu di ko xamat xale bi dal di dem dal fa qaala mawli li yéen abu zeydin aalim te ndax nga anal adab nakam kam adab xat baara lamuna na wala daduna ansar way nimbalam waaye ndimbalam al adbaara gannaaw ya xam nga ne xam-xamu adab legi lamuna borom xam-xam yi war nañ ko gannaaw fu butuma delu lahu ñeel ko waaw bi xusnil basirati ci rafata gis-gis wasalamtu ma jébbalu bi xukmi darurati ci atteeb lor wa mu ne ci laa ko nangul gannaaw ma gisee li xew lii lépp ma daal di ko nangul nag xam ne lii lii la yàlla andi daal fa xaar Abu Zayd ne daax naa bàyyi ñu alaana misaan ci waaw werante ga nañ bàyyi werante gi nekkee nii ak dóorante ga waxut na nga xuus fi xadiisil xisaa yi ci waxtaanu ndab ya léegi nañu wut nag ndab yuñ lekk waalam xamal an na ya laa tushbu duñ suural man jaaku xiif wax yu bokk fuñ daaneel du tax nga suur fa ma tadbiiru lan mooy xalaat fii maa ci laa xam ne yum siku dana téye dana téye ramaqa ndesitu ruu léegi na nañ xalaat ci loo xam ne danañ ci mën a dund daal suñu ruu deseeti ويد فيو مفاي على حرق لك لك قول ولا لك لك بخيف نقول لك لون لك واخ حارس نفا قلت ما يقول أمر برم إليك جمنا تيو وزمام نسكا كي بيريك ممسا نياري لخو بلون جلم قام بوم لما نياري بوم جيب جوحنا لكو تيل سالي لخو يا قول نو يدف بولين لك فقال أبو زيد نوك أرادنا جس أنتر هننغا تيلي سيفك سجاسي لتشبه أنجرنغ سورة جوفك سبير wa day fukk sa gan man sa gan laa yow yaa ma ganale kanaa kay xaalis mooy gan gi parce que xaalis la ko fekk gis nga dafa am fulla moom mu ne ko man maay gan gi léegi yow yaa jël si jaasi nga tayle ko boo ko taylee ñu wut si luñ lekk yow nga lekk ba suur leyal sa gan gi fanaawil nii jottali ma jaasi ji wàqim te nga sax fii rek yow jox ma jaasi ji rek <laughs> <laughs> waaye bu jug <laughs> jox ma jaax ji te toog leen xaliba ngir ma jaawel bu ko iléegi jëm bi ma taltaqimu ci li nga lekk danaa la indi loo ah, du moom mooy borom gan gi kay moom moo war a wuti waaye na ko jox ma maay wuti andi la faaxsantu ma rafetal bii ci moom asan na njort ma jot ci moom njort bu rafet waqalatu ma rangal ko asayfa jaas ji war na ak ma bàyyee ko jaas ji ko tay la ga fa maa labisa saxut an rakiba lu may war na an naaqata gëlëm ga wa rafada mu bañ a sidqa wax dëgg wa sadaqata ak xaritooga man sànni na ko fële wax dëgg gi mu sànni ko fële fa ma kastu sax ma leen ab diir ataraqabu di ko fuuglu ma toog na di ko xaar su ma naxatu ma buur ataraqabu di ko topp xaar naa ko bu lu yàgg abu zeyd ñëwut ah ma topp ko nag fa kuntu ma nekk ka man dayaa mel ni ku sànq alla bana soow fi sayfi ci noor wala mu alqaw dajewu maag abu zeyd wala sayfa dajewu ja moom daal noonu la yóbbee sama jaas ji daal di dem xaar naa ko ba sonn ñëwul ma topp ko gisuma ko mel ni ku sànq soow ci waxtu noor loolu misaal la ci koo xam ne ni dafa war a sàkku aajo ci waxtoom sàkkuwut ko ba aajo ba raw ko dañ naan sank na soow ci waxtu noor waxtu woom war a sàkkoo mbir mi sàkkuwut ko fa ba raw loolu loolu mooy léebu daje àll ba na fi sayfire إن أريد الإسلام ما استطعت توفيقي إلا بالله إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته